yaakaar nañ ni di nga war a mën a fay impôt te li ñu seetlu moo di ñu war a fay impôt te fay ñu ko moo bari ñu bëggoon nag ñaax nit ñi <coughs> ci lan mooy impôt pour que ñoom ñu mën a ñëw di fay nangoo fay ndax gis njëriñu impôt ñi war a fay impôt te fay ñu impôt dafa bari directeur général impôt bi wax na ko sànq boo seetee secteur informel bi bari na entreprise yi nga xam ne xam nañ leen ñooy fay te boo cité ci entreprise yi ñuy fay téeméer rek ñoo ciy fay fay bu am solo maanaam ñooy entreprise yi gën a mag ci Sénégal ñooñu ñooy fay impôt bi gën a ëpp solo léegi nag fokk ñu seet ñi nga xam ni ñi ngi ci marché yi ñi ngi ci feneen ak feneen te kenn xamu leen te ñu war a fay moo tax ñun tamit liggéey boobu experts yi dinañ ci taxaw ak direction générale des impôts et domaines pour gën a yaatal waxtaan wi gën a seet aussi ñan ñoo war a ñëw pour fay impôt bu ñuy xamee njëriñu impôt yaakaar nañu dinañu nangoo fay ndax dinañu gis lan lañ ci nar a def ci biir impôt boobu bu ko état bi recouvrer parce que bu état yi recouvrer dañuy nekk di leb rek di leb ci yeneen réew yi te buñ dee leb fii suñu doom yi ak suñu sëtti sax dañ fiy nekk di fay bor boobu li gën nag ñun ci suñu bopp ci li ñu am lu mu tuuti tuuti ñu delloo état njukkal maanaam fay ko impôt yoo xam ne dina ci mën a defaraat leneen ak leneen bu njëriñu ñëpp. dañu am loi boo xam ne 2017 lañ ko fi teg boo xam ne ñun ñii experts yi moo ñu tënk ñu amoon nag décret bu waroon a ànd ak loi bi ñaari at ngi nii décret bi génnagul ñu bëggoon nag décret bi génn ndax bu décret bi génnee ñun dinañu am sañ-sañu xool ñan ñoo war a liggéey yëngatu ci impo parce que gis nañ ñu. te loolu administration fiscale gis nañ ko ay démarcheurs yuy dem ci impôt bi di lijjanti ca ñooñu waruñu ko def ndax mbirum impôt dafa nekk loo xam ne dafa ku foog nga xarañ xam lan la pour mën ko doxal looloo tax aussi ñu bëggoon suñu décret bi génn ndax ñu mën a gën a seet ñun ordre national des experts du Sénégal nan la ñuy taxawee nan la ñuy gën a yëngatoo yëngal boo xam ne aussi dinañu mën a informer population bi même journalistes yi sax ñun am nañu ci suñu projet yi benn séminaire boo xam ne dañ leen koy jagleel comme expliquer leen mbirim impo lan la ak lan mooy loi de finance ndax lan la ñuy séenu aussi ci loi de finance ndax nag aussi nañ ko seet Sénégal ñi ngi dem léegi ci budget programme bu ñu budget programme moo di bu ñu voté léegi bu assemblée nationale voté ren budget jox ko benn département ministériel ci base benn programme boo xam ne moom lay teg at mi ci bu ñu dellu siwaatee déwén war na ko jox ay résultats wax ko ci loolu lan la ci def loolu nag mu nekk lu am solo loo xam ne ren la commencé ñu ngi leen di ñaaxte tamit yéen ngeen suivre bu baax budget programme yooyu pour bu déwénee balay loi de finance bi di ñëwaat wala bu ñëwee ministère yëpp mën a wax lan la ñuy def ci lan leen joxoon daaw impôt loolu lay jariñ parce que xaalisu askan wi la foog aussi ñu xam lan lañ koy def nan lañ koy utiliser askan wi tamit nangoo fay impôt